ñëw ci le grand muy le DG Siraja nit ku baax nit ku respecté doomu aadama nit ku am yëg ci doomu aadama nit ku du wax muy dañ mukk du wax muy dañ lu mu la wax tey suba dina ko def suba nee na moom ko lebal bëccëg mu fay la guddi foo taxaw muy ter li nay dama mbug di faral di wax rek moom mooy l'incontournable la force tranquille du wax lu bari de mais bu jëfee rek ñu xam ne jëf na man responsable bu nekk ànd naa moom presque man fi gis naa ko nekk nag mais man li ma gis si moom gisuma ko fenn moo tax ñu accroché wu nag dinañ ko wan bi waa Kër Daago ñu ngi si waa Silma ñu ngi si waa Parcelles Assainies ñu ngi si Cité Senghor 1 Cité Senghor 2 ak Darou Salam naqari mosul am barke Seydina Mouhamed ku ma ne Sëriñ Jaay ma d'accord dama eggal sama ma d'accord ku nekk fii suñun fii ku nekk suñun dama doon wax rek képp mën naa xam ne bépp responsable bu nekk biir Thiès bu sañoon am na leader bu mel ne leader muy assainissement bi muy éclairage public bi muy emploi des jeunes financement des jeunes Euh, formation des des femmes man yaakaar naa sama xel dal ci sëriñ ci loolu parce que loolu ci lay dox loolu ci lay dox yàgg na te xam lu wul lenn kenn muy guddi muy bëccëg si rajo mën nañu xam ne moom mooy gilet de sauvetage la bu yeboo ñun ñëpp ñu accroché wu si moom te ku accroché moom rek dootu loolu doon la ñu koy ñaanal yàlla nag li mu yëre ci président Macky Sall yal na ko yàlla defal di ñaan nag yéen waa. yéen waa mouvement bennoo Dooleel Siré Dia bi yéen ñëpp muy góor muy jigéen mag ak ndaw dama leen di ñaan en 2017 centre yi nga xam ne ñun ñun ñoo fa dëkk muy centre Demba Diakhaté muy centre Cité Senghor muy centre euh, Silema di centre Kër Daago ak. Euh, euh, Bambara Cité Lamine bu Cité Lamine bi Moodakan Moodakan dama bëgg en 2017 dañu commencé ñun léegi dañu commencé suñu liggéey am saxaar léegi dañu commencé. 2017 ñu remporté victoire jël jël remporté kii à 100 pour cent. tàcc ah, leen loolu waay. loolu mooy suñu objectif de mouvement bi loolu mooy objectif am dañu bëgg 2017 centre yooyu yëpp ni Sénégal gagné Aiglon ak Fale moom bu dikkee fii noo am victoire bi mel noonu fii ñuy ñaan yàlla yàlla ñu ko yàlla defal lii doléance yi ngeen di wax fii nag jaruma ci jaaraat sax parce que man li ma wóor mooy Sénégal moom dina ci tànkam parce que du wax di bàyyi te développement bi ma Macky nee na bëggul politique politicienne politique de développement la def ñoom te développement moo ko ñor kon li ngeen wax yëpp problème développement zone est bi moo ko ñor man je pense que ne DG Sénégal bu déggee lii incha allah dañu am satisfaction wasalaam. et eh, dëkk bi kenn defatul xam nga lu ñu wax kii liggéey kii jàppale nit ñi bu leen def bu leen kenn nax nee leen ki defar dëkk bi Pape Siré nee leen ki defar dëkk bi Pape Siré da ngeen da ngeen di nelaw Pape Sina Macky ndeysaan góoru Ami Collé góoru Assoumi fekke leen lii ndey dafa mbuub waa ji defar Thiès te defu fi dara lu ñaaw ki jàppale ci dooleem jàppale ci wërsëgam te bëggul dara lu ñaaw mi ci jàkka yi ci teere yi xoolal ci jumaa ci kees nag Pape Sina Macky lii la yàlla def dama ko ne macha allah dama koy dagg sama baat sax dafa dee. le docteur de l'APR dama daan wax c'est le capitaine de l'APR maintenant c'est le général de l'APR Pape Siré Dia l'infatigable le bâtisseur de l'APR Pape Siré Dia mu Macky Sall di nuyu waa Cité Senghor di nuyu am euh, madame Kane am sa asu jaxate bu baax a baax di nuyu avec yi nekk ci ginnaaw asu jaxate di liggéeyi nar a jàppale Pape Siré Dia la DG de la poste di nuyu waa Daggo di nuyu waa Daaru di nuyu waa Cité Lamine Pape Siré dégg na seen taxawaay gis na li ngeen di liggéey fan yëpp nee na mi ngi leen di nuyu di leen sant di leen dig loo xamante ni bu soobee yàlla di ngeen ci teg seen bët di nuyu ilimaanu jàkka yi ak chef de quartier yi di nuyu responsable yi ñu fi fekk di nuyu bureau bi ñu fi fekk yëpp ñu leen di nuyu di leen sant man dama naan dama kontaan tey man damaa ragal ànd ak responsable bu amul base Pape Siré Dia du ànd ak benn responsable bu amul base lii mooy base di liggéeyal nit te munoo rassembler juróomi nit loolu du base waaye nag la directeur général de la poste. ku ànd ak moom da ànd ak moom ci dëgg ak fulla ak fayda ndax loolu la ñu nee naa ko ja ni ngay yaroo ni nga dëggoo ni nga maanoo il est grand ak ni mu jo boowee noonu la mu nee wax dëgg noonu la mu nee jëf dëgg la directeur général de la Macky Sall takkal koy ay ndombay tànk takkal ay moromam ay ndombay tànk lu waay yor ci trois communes d'arrondissement yëpp Pape Siraja bana koog yow jël li ko Macky bokk koog yow loolu la directeur général de la poste boo nee politique ni emploi des jeunes ni développement des femmes mu ànd ak Macky Sall ci plan Sénégal émergent émergent nag Thiès xale yu góor yi les bacheliers danoo lemoon seen këyit yi seen diplôme yi ba mu xotteeku ba Siré ñëwee Thiès ci trois communes d' arrondissement yi ne ku ne génne dossier génne say diplôme benn xale bu góor taxawaaloo fi arrêté Jakarta yi à Thiès. damay wax ci Siré Dia nee naa ñun danoo ñemee taxaw di wax suñu réalisation leader ndax Pape Siré Dia naxul Macky Sall ku ànd ak Macky Sall ci dëgg rek nga war a dox Cité Senghor nag dama leen di wax defe naa képp ku doon na la war ngaa yeewu maire bi nekk Cité Senghor le maire de zone est bi bu liggéeyee Cité Senghor xam ngeen ñaata yoon ko fal. ñaata mandat lañ fi am Cité Senghor amul sécurité éclairage public amu fi dara amu fi xale yaa ngi taxawaalu turu rek fal nan ma di fayeeku seeni xaalis yoo xamante ni bu ngeen dee fay courant taxi yi moom la ñuy dagg def ci maire bi moom la ñuy lekk dafa nañu leen seen euh, assainissement amu fi éclairage public amu fi li fi nekk Macky Sall ko def bourse familiale bi du réew mi du kenn man maa ko wax Macky Sall moo fi indi bourse familiale bi jox ko ñoo néew doole ñu yor seen njaboot te seen loxo jotewul seen digg ginnaaw couverture maladie universelle Macky Sall moo ko fi indi képp kuy césarienne loolu leer na leen fayatuñu dara ku am a zéro ab zéro a ba ba ba zéro à cinq ans da ngay faju te doo fay dara insuffisance rénale bi gis ngeen ni fi makki Sall def li Macky Sall def ci développement def ko ci euh, lépp ci ak Sénégal bare na kon réew mi lan lan fi def Pape Diop def fi dara man de dama ñëw su tay jii buñ fi dafa war a nekk génn dëkk bi génn si te dëkk ku fa nekk te tekki woo fa dara kenn gërëm mu la kenn newul yaa baax boo tëddee ba guddi waxtaan ak sa njëganaay war ngaa génn koñ boobu Pape Diop defu fi dara Idrissa Seck liggéeyu ay meeram liggéeyu danoo échec dëkk boo fa nekkee ñu far la ñett yoon te tekki woo fa dara lan fay jot waa si te Senghor Pape Siré nee taxaw seen taxawaay bi liggéey sa si te Senghor wutal Macky Sall une majorité en 2017 à l'Assemblée bu soobee yàlla moom lu mu wax da koy def jàmm kuy ndékki di la xellil kaas bu la diggee añ bu yeboo nga toog xaar emploi des jeunes yi muy wax dugg na Cité Senghor barki démb doomu asu jaxate gis na ko jël na ko te nee na macha allah yamuma foofu koñ ba askan wi ma tax a ñor li koy yàlla jox bénéficié wu ci dara si la jax bugg ci dara xam nga kan moo ko ñor Macky Sall ak askanu kees te yemul ci zone est bi demal zone noonu nga ni nga tudd benn leader te tuddoo Pape Sira Dia boo nee kan moo fi ne dañ naan Pape na responsable bu fa nekk nga dem zone est ñu kan moo fi ne dañ la naan Pape Sira kii def jumaa yi def jàkka yi def ci ASC yi def ci développement des femmes financement des femmes emploi des jeunes mais kooku lu mu defal waa Sénégal lu mu desal waa Thiès nan leen yeewu dama naan toujours jigéen ñi ñun ñoo mën ci kër ñoo mën ci àll nanu takk suñu liggéey taxawaat taxawaay bi suñu jëkkër yi bu ñu defee benn ñooy def fukk nanu jàppale ki ne ci dëkk bi nattee liggéey dëkk bi mooy le directeur général de la poste l'incontournable l'infatigable jëfkat bi ki nga xam ni il parle peu mais il agit vite dama naan Pape Sida dalay décanté te du la escanté dalay décanté di yenn saa yi bàyyi ko mu daw a daw a daw ba baqataam watt Pape Sida ni ko Macky moo ma ñor moo ma tax a jóg su boobaa doo ko réetu ndax Macky rek a ko ñor xam nga lu mu bëgg jël Thiès teg ko ci loxo Macky Sall te bu soobee yàlla xam ngeen ne ñu ngi ci gis ngeen référendum yi bu passé c'est grâce à Pape Siré Dia ñoo jëlee APR à 7 pour cent ñoo koy yóbbu à 43 pour cent te incha maa taxaw fii wax ko bu ñu yàlla mayee gudd fan ak wér ci législatif yi dëg dëb si ah ñun ñooy yóbbu APR à 103 pour cent wutal suñu président une majorité boo xamante ni ñun ñoo koy def waa kër Pape Siré Dia te ñooy falaat président au premier tour en 2019 te ci ñun ñii la Pape Siré Dia yaakaar pour jël kees teg ko ci loxo Macky Sall dama ni maire euh, maire zone est bi dama tëdd nelaw kees du këru bàyyu kenn du këru ndayu kenn xam nga lan la ku fi jëf askan wi faale la boo nekkee ci kër tekki woo fa dara sax kenn du la faale kon ki ne ci dëkk bi defar dëkk bi faale leen ko mooy le directeur général de la poste ki créé emploi ki def ci kees ki jàppare Macky di gërëm nag bët day fattu suñu coordinateur bu baax bi tàyyiwul damay dégg ñu naan politique dox la ak wax ñun lii la ñuy def après les référendums trois jours la ñu am repos boobu ba léegi ñu ngi liggéey sur les cartes électeurs ci carte d'identité yi ku am 18 ans wutal na la carte d'identité jiital nañ la nga inscrit ci centre bii. ñun ñoo waa kër Pape Sira Dia def loolu jàppale Macky Sall tooguñu ba gis ba rek ñu jóg dugg ci dëkk bi di nuyoo ak di fëgg bunti dañuy liggéey ba liggéey commencé bu gañee jotee yi dañuy gañe te bu soobee yàlla bu ñu ci législative yi di ngeen xam ne liggéey à Thiès lan la vive le directeur général de la poste vive Pape Sira Dia vive le président de la République monsieur Macky Sall son excellence merci beaucoup Sira Dia Sira Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré Dia Siré waaw walaay ni kenn bañu ko waaw walaay ni kenn bañu ko kii Cité Senghor mbokk yi Cité Lamine mbokk yi Kër Daago mbokki Silma mbokki Daaru Salaam ci turu DG Siré Dia salaamaaleykum wa rahmatullah présidente Aïssatou Diakhaté Kankou Mati Thiam ak seen responsable yu góor yi jeunesse su Cité Senghor jeunesse jigéen ñi mag ñi imaam gërëm di leen sant mbokki mouvement dooleel Siré Dia fi may tàmbalee samay kàddu daam lu may fàttali bés ñëw nañu wuyu si Aïssatou Diakhaté fii ci taatu garab gi waaye ku xool bés boobu xool tey xam nga ne Siré Dia ak waa këram màgg nañu biir Cité Senghor bu baax a baax a baax a baax a baax a baax loolu yenn waa mouvement Benno Dooleel Siré Dia li ko indi foofu lay tàmbalee DG Siré Dia ba mu taxawee Thiès ne waa Thiès président Macky Sall def na ma directeur général de la poste daf ci teg ne incha allah yéen waa Thiès di xam ne man maay directeur général de la poste waaye ba mu ca jógee dane lëg bu lekkee alom na ko gërëmee cooy dane moom DG Siré Dia dina jàppale président Macky Sall ba Sénégal yëpp xam ne jàppale na ko loolu bu mu amee mu tàmbale chemin maam parce que wolof dane béy sa weewu tànk eglon ga mu juddoo di doomu cheminot ñu dem élection mu gagné casino ñu dem élection mu gagné centre de formation professionnelle ñu dem élection mu gagné cité Ibrahima Sarr Balabé ñu dem élection mu gagné PDF moo dakan ak coalition Benno Bokk Yaakaar lu indi loolu du ay wax de Siré Dia parle peu ku ko xam ne il n'est pas bavard uteeg ñi nga xam ni seen carence seen ñàkk mën seen matadi seen làmmiñ lañ koy mottalikoo Siré Dia day nit ku ko xam te ni bëriwul wax waaye mbokku Cees li may faral di wax ñun Siré Dia fierté la ci ñun li tax li may faral di wax rek mooy Cees ba mu sosoo ba tey 1960 ba Cees jële indépendance ba tey lu nit waxati waxati waxati bilan Siré Dia amul benn responsable politique amul benn cadre boo xam ne mës nga koo def à Thiès bilan mooy lan mooy jàppale la jeunesse thiessoise en particulier me surtout la jeunesse sénégalaise ci défi majeur bu président Macky Sall mooy lan emploi mooy maanaam lan jeunes yi mu fexe ñu liggéey te fii ci de Senghor DG Siré Dia lu nit waxaat di wax di xam nga ne loolu mu ngi ci buñ ci jógee li nga xam te ne ay groupement la mun nañ ci citer ay groupement yoo xam ne DG Siré Dia jàppale leen ci développement buñ ci jógee mun nañ citer lieu de culte yoo xam ne DG Siré Dia fii ci cité Senghor def na fi alalam te yàlla tax tey loolu tax na ba tey aussi à Thiès Ceesuwaay li mu leen waxoon moom Siré Dia te départ ba tey gëm nañ ko waaye tey ñuy seedal président Macky Sall ne ko Siré Dia matale nag waa Cees tey ñu ngi wax ne ñun waa Cees nañ matale ak Siré ndax ñun waa Cees ay góor lañu dañoo xamul woon dañoo gisul woon waaye bañ gisee Siré Dia ba ñu ñemee Siré Dia lañ xam ne ndekete kilifa am na ndax kilifa kàddu la sa kàddu bu rotee da nga ko war respecté bu dul lool doo kilifa kon loolu bu amee déjà Siré Dia continuer ascendance politique am ba tey yàlla dogal fii si cité Senghor 32 responsables yu dëkk ci zone bi à travers leur présidente Aïssatou Diakhaté taxawal mouvement Bennoo dooleel Siré Dia DG Siré yéen waa mouvement bi nee na gëm na ne yéen a ngi koy dooleel te di ngeen ko dooleel te gëm na ne élection yu ñu jëm cité Senghor cité Lamine Darou Salaam Silma di ngeen ko gagné pour lui loolu DG Siré Dia nee na lu mu gëm la ndax tey yéen présidente yi yéen jeunesse bi mobilisation bi am fi tey à cité Senghor lii c'est historique c'est parce que d'abord vous êtes engagé vous êtes déterminé mais aussi ay responsables yu crédible ngeen fa ngeen dëkk moo tax bu ngeen jógee tey ces centaines de personnes jóg topp leen ngir jëmmukat ngir des Siré Dia kon loolu dañu leen ciy félicité di leen ci encouragé. DG Siré Dia nee na ma wax la leen ne leen li mu leen sant mooy li mu ñu santoon rek mooy ngeen continuer yaatal base bi ci zone bi ngeen continuer dem ci ñi nga xamte ne ay porteurs de voix lañu. ngeen dem ci kilifa yi nga xam ne kilifa diine yi la ngeen dem ci ñi nga xam te dañoo yor ay groupement ngeen yaatal Siré Dia nee na présidente moo leen ne leen bu leen tiit bu leen ragal ndax moom Siré Dia li ko waroo ak yéen li ko waroo ak seeni militant li ko waroo ak waa Cité lamin li ko waroo ak waa Cité Senghor li ko waroo ak waa Kër Daago silman Daaru Salaam incha allah na ci taxaw te lu nit waxadi waxadi war nga xam ne Siré Dia bu def ci kàttanu yàlla il va faire parce que li ko ñor mooy askanu Thiès kon loolu bu amee présente dañ leen di encourager di leen féliciter tur DG Siré Dia yéen ñëpp ñu fi teew ñu ngi leen di gërëm di leen sant mais aussi daam lu may wax fii tey mbokk yi waa Thiès laay waxal waa Sénégal dinaa wax ak ñoom xam nga it déjà Siré Dia bu mu jógee ci politique ba tey Ceesuwaay ñu ngi koy jàppale waaye la mu mënit saa su ne ak lu mu mënul mu ngi koy defal Ceesuwaay mais aussi ñun Cees ñun ñoo fi taxawoon ne soxla nañ leader boo xam te ni day jege population thiessoise soxla nañu leader boo xam ne day jàppale askanu Thiès DG Siré Dia tey yàlla def na mooy leader boobu kon yéen aussi mbokk Cité Senghor DG Siré Dia li mu leen sas mooy ngeen ànd ak moom ci marcham bi muy marché parce que moom nee na daam dox bu muy dox muy ñaar bu njëkk bi mooy jëmale Thiès kanam waaye beneen bi mooy ci kattanu yàlla en 2017 dans la ville de Thiès commune est commune nord commune ouest mu jox une victoire écrasante au président Macky Sall en 2017 jàppale président Macky Sall pour mu am une majorité écrasante au Sénégal kon yéen ñi fi nekk tey loolu DG Siré Dia moo leen ko assigné leneen li may wax déglu nañu aussi doléance yi mais dama ne jeunesse su Cité Senghor jeunesse su Kër Daago Silma Cité Lamine Daaru Salaam parcelle li ma leen di wax mooy yéen jeunesse bi topp leen ngeen ànd ak soom seen yaay yi ngeen jàppale Siré Dia te na leen wër ne déjà Siré Dia na leen jàppale parce que nee yemul DVF li mu def Grand Thiès def ko man dina Fall def ko caali def ko jàmm gën def ko feneen ak feneen da ngeen xam ne yéen jeunesse su Cité Senghor ak li ko wër DG Siré Dia ne leen jàppale mais ngeen ànd ak seen président ngeen jàppale ko. jigéen ñi déglu nañu seen i doléance lu ci ëpp lan la ci financement la ak formation dama ne Siré Dia nee na moom Sénégal li ko fi gën a soxal tey mooy jàppale jigéen ñi nee ndax yàgg na wax ne yéen jigéen ñi yéen a ko yor yéen a ko yor yéen a ko yor. kon war leen a wóor ne ci kattanu yàlla ne jàppale ci formation te ne leen jàppale ci développement ak financement kon kanku Aysatu côté boobu góor góorgóorlu leen ci groupement yi mais xam ne déjà Siré Dia ne ci taxaw imam déglu nañu say kàddu ñeenti jàkk ak juma ñu ngi si des Senghor yoo xam déjà Siré Dia jàppale na leen kon yéen ñi féete boor bi waa Kër Daago waa Kër waa Silma waa Daaru Salaam na ngeen xam ne aussi jàkk yeeg juma yi des ci kattanu yàlla chaque année que jëfee DG Siré Dia lu mu ca mën danañ ko jàppale leneen li may wax aussi déglu nañu ngeen wax ci ASC yi foofu li ma ciy wax mooy ba Thiès di Thiès ba tey lu nit wax di wax di xam nga ne Siré Dia lu mu jàppale ASC yi fii ci Thiès amul benn responsable politique bu ko def amul benn équipe buy dem phase nationale te au retour doo taxaw wax ne bu doon teg Siré Dia suñu phase nationale du baax wala duñu ci sori kon waa Guelwaar na leen gëm gëm leen na leen biir ne DG Siré Dia na leen jàppale mais aussi dañu di ñaan ngeen jàppale ay surtout aussi ñoom it ñu mën a jàppale le DG Siré Dia ndax wolof dana nit ki bu la nekkalee ci naaj bi da koy nekkal ci kër gi bu la nekkalee ci ker gi nga nekkal ko ci naaj bi kon loolu day loo xam te incha allah bi seeni i la te na egg ci DG Siré Dia te dina ci taxaw waaye damay wax ñaari mbir. dégg naa ngeen wax éclairage public dégg naa ngeen wax assainissement foofu DG Siré Dia certes lu mel ni Aiglon lu mel ni Payenne ak feneen ak feneen ci Thiès mu ngi ciy intervenir naam nañ ko soumettre lu mu ci mën mu jàppale leen mais dama ne man deewoon naa ne foogoon naa ne fii di koñu maire bi loolu waru fi woon mun a posé te aussi bu tawee ñëppay xuus xanaa ñu war a mën a sëq mbedd yi buñ ci mënul def assainissement c'est la moindre des choses parce que damaa yàgg wax ne mairie boo mënul taal lamp mënoo tonni mbalit mënoo def social dama ne booy boo ñu tëj mairie ba ku nekk demal sa bopp te tey Thiès laa wax ville looloo fi xew les maires ont failli mais maire on échoué heureusement que DG Siré Dia mu ngi fii taxaw heureusement que DG Siré Dia mu ngi jege population bi moo tax it may faral di wax ne se le président du conseil départemental may faral di wax ne c'est le maire de Thiès ndax rôlu maire loolu directeur général poste DG Siré Dia moo ko joué fii ci Thiès kon mbokku Thiès bu ñu yàlla indile ku mel noonu nag ma fàttali ne leen jaayoon nañ ñu fi ne ñun c'est une ville rebelle ay bañkat la ñu gis nga loolu ñu ko waxati ndax xam ne suñu musibaak suñu balaa la ñuy la ñuy njortal ndax contrôle nguur contrôle ki lay jàppale te jàppale ki la dul jàppale ku la ko wax mu ngi lay nax te ñun waa Thiès dañoo war a xam ne wolof li muy wax a dëgg sama boppam gënal du bañ naa la buy leen di jàppale jàppale ki leen di jàppale te ki leen di jàppale si Dia moo di jàppale kon jàppale leen ko te leneen li ma di wax mooy moytu leen ba élection jot. ñu indi fi ay xaamar tar sono tàllal leen loxo jàll wallaay gis nga ni leen tàllalee loxo noonu jàll ba mandat di ñëwaat aussi seeni coono ngeen nekk ba booba ndax ki leen di tàllal loxo ki xaamaram du ko mooy régler seen problème ba mu fi rombee ba tey kañ ngeen ko gëj gisati kañ dañu wax dëgg bu fi ñëwaatee élection la bu dee dañoo bëgg jëm dëkk bi jëm kanam il est temps que ñu adduler à day DG Siré Dia jàppale ko jël dëkk bi teg ko ci loxoom mu teg ko ci loxo président Macky Sall ndax Thiès aussi président Macky Sall fàttewul Thiès ndax tey ni ko Ndeye ba waxee boo waxee bourse familiale yi nga xam ne mairie moom leen jël leen ko naxee na nga xam ne bourse familiale yooyu du mairie ñoo leen koy jox président Macky Sall ak gouvernement Sénégal ñoo leen ko jox ku ko ci jot na nga gërëm président Macky Sall ak gouvernement ndax ñoom la parce que ñoo jàpp ne Sénégal tey war nañ toll foo xam te ne nguur war naa génne alal di jàppale njaboot loolu président Macky Sall bilaam la tey. boo leen amee transport en commun boo leen fayee ñaar fukk fu leen neex dem dama ne président Macky Sall nee leen jërëjëf Macky Sall jërëjëf président Macky Sall NSTS bu ubbee tey ma ne président Macky Sall la bientôt incha allah rabi am na proget boo xam te ni Thiès dafa bokk ci dëkk yi président Macky Sall tànn pour que dañuy def ay route secondaire mooy ay tali ci biir koñ yi lu mel ni si Cité Senghor lu mel ni Daaru ak Kër Daago président Macky dafay def ay tali. te dafa indi ay lampa lampadaire solaire mooy lampe yi nga xam ne solaire moo koy doxal dama ne président bu bëgg dëkk faale dëkk moo koy def mbokk yi ci histoire du Sénégal dafa am ñaari projet yoo xam ne ñoo gën a rëy ci histoire Sénégal ci financement bu njëkk bi mooy autoroute Ila Touba bi te ñëpp xam nañ ne président Macky Sall Thiès la ko teg jëm Touba mbokk yi bien bientôt à Thiès président Macky na éjecté sept cent cinquante milliards ci lan chemin de fer chemin de fer dundaat te ñoo xam ne bu chemin de fer dundee Thiès dund bu chemin de fer développé au naat kon war ngeen a wax jërëjëf président Macky Sall te jëmalewu ko fenn Thiès la ko indi waaye mbokk yi dafa am bilan président Macky Sall bu doon loolu rek la def mu yem fa war naa tax ñu jàppale président Macky Sall war naa tax ñu voter président Macky Sall xam ngeen mooy lan li mu jël DG Siré Dia doomu Thiès noonu ko directeur général de la poste lool rek waroon na tax Thiès gépp jàppale président Macky Sall li ñu métti Désiré Siré Dia koy faj Thiès waay jeunesse bi ki ñu am yaakaar ma ne Désiré Siré Dia la problème bu ñu am te ki koy réglé Désiré Siré Dia la mbër yi problème bi ñu am ku koy réglé mooy Désiré Siré Dia basket bi football bi problème bu ñu am Désiré Siré Dia moo koy réglé emploi problème bu jeunesse Thiès am moo koy réglé éclairage public assainissement développement lépp Désiré Siré Dia la kon waaye waaye artistes yi nee nañu Siré Dia la kon dama ne loolu bu amee ñun waa Thiès lu ñu war. ñu def benn say def benn dànk ci ginnaaw DG Siré Dia comme ñu ko ñoom Aïssatou defee def bloc liggéey ànd ak DG Siré Dia dëgmal 2017 ndax Siré Dia ni ko Ndeye Daba waxee après référendum bi trois jours lañ ci di teg mu dëgmal 2017 te loolu ma waxaat ko fii Thiès Est Thiès Ouest Thiès Nord li ñu def fii tey jii si Cité Senghor ak Aïssatou loolu la ñuy def Medina Fall loolu la ñuy def Daaru Salaam loolu la ñuy def Grand Thiès loolu la ñuy def Somm def ko Mbour def ko Jaxaaw ndax DG Siré Dia nee na musul am frontière mais il va accentuer son travail ci ñetti zones yi ndax Thiès tey nu nit wax di wax di wax di APR progression rapide bu mu am ak Benno Bokk Yaakaar peut-être ku nekk sa loxo ci waaye kuy wax te yàlla tax moteur bi ki Thiès waay yi xam ne taxaw. ki tax Thiès waay di voté président Macky Sall kuy wax te yàlla tax xam nga ne DG Siré Dia la kon yéeneem mooy jàppale Thiès yéeneem mooy développer Thiès waaye na ngeen xam ne yéen ñi ànd ak moom yéeneem aussi mooy jàppale président Macky Sall pour que mille 2017 ñu gagné Thiès avec la manière ndax muy Idrissa Seck ak ñi mu àndal ils ont failli te Thiès ma wax leen leneen bañati leen ñu nax ñu bañ leen ñu nax ñu mooy naan dëkku bañkat la ñu. bañ leen ñu nax ñu ñu naan ay diway doomu Thiès Siré Dia kenn koo gën koo doon doomu Thiès ndax dama ne ku juddoo Thiès sa bàyyi di cheminot kenn gënu laa doon Thiès waa kon bu ñu nax mooy bu élection jotee ñu gisee bu élection passé duñ leen gis sama yaay yi laay waxal seeni doom seen carrière ak seen avenir moo nekk en jeu te kuy wax te yàlla xam tax xam nga ne kooku Siré jaa tey moo ci mën dara kuy wax te yàlla tax xam nga ne président Macky Sall moo ci mën dara kon ñun waa Thiès ñu ngi wax DG Siré Dia di wax président Macky Sall ñun tey dëkk bañkat la ñu mais xam tax ñuy bañ naxekat yi ñi nga xam ne élection ba élection gis ñooñu bu ñëwee ñun dañuy bañ ñoo lank duñ ko nangu dootuñu nangu benn naxat nax ñu dootuñu nangu benn usurpateur de fonction nanguñ nax ñu du dootuñu nangu benn marchand d'illusion nax ñu ndax Thiès kenn moomu ko Thiès waaye ñoom Thiès. te dee naa ne tey Thiès ñoo jël cees dénk ko Siré Dia kon ci kaw loolu li may wax mooy mbokk yi tëgg bi neex na woy yi neex na mais li ma ni ñaan mooy luñ fi waxtaane tey ku nekk na ci dëggu te xam ne yaa yi fi toog nañu jàpp ne lay jëmale cees kanam suba c'est la jeunesse te jeunesse boobu ñii fi doon gagné mënoon ñu leen dara ndax buñ ko mënoon ba tey def ko mënuñu ko jéemuñu ko li kan ko waxee dëgg groupement de famille yi ñu nax ci financement gis ngeen ko ñoom ñëpp dañ koo dund kon kii taxaw ci loolu DG Siré Dia la waaye waaye kon mbokk yi war nañ xam ne kooku aussi li mu bëgg te soxla ko mooy tey ni ngeen dajaloo mobiliser wu derrière Aïssatou seen présidente ngeen mobiliser woo noonu fi ñu jëm mooy élection législative yi di ñëw Siré Dia fii boobu dina leen jàppale waaye bañ ca tolloo aussi cité Senghor Kër Daago Silma Daaru Salaam cité ñëpp mobiliser wu et massivement pour aussi permettre au DG Sirédia de gagner cette ville et de permettre au président Macky Sall de gagner le Sénégal pour que le président ait une majorité confortable à l'Assemblée nationale kon mbokk yi DG Sirédia di doomu dëkk bi di ki am njëriñ ci dëkk bi ki am yéene ci Ceesuwaay muy jigéen ñi muy jeunes yi na mu ngi leen di félicité présidente nee na mu ngi leen di encourager nee na moo xam ne leen pas boo leen teg ci zone bi boo leen ko gisee boo leen ko gisul na ngeen xam ne yéen ak moom moo yéen a ci ànd nee na yéen koy doxal di la di ko waxal waaye moom Siré Dia moom di jëfal te jëfu Siré Dia du caaxaan du foo du ree te ku mu ne dinaa la jëfal dina la dinaa la jëfal ku mu ne dinaa la jàppale dinaa ko jàppale kon loolu seeni responsable yi ci zone bi na ngeen ci ànd ak ñoom ngeen jàppale leen te aussi tey xam naa ne am na responsable yoo xam ne zone bii duñ nelaw ndax lii ñu gis fii musu fee am waaye ki tax moom Siré Dia la ak ñan ñoom ay sëtu kon bu guddee nañ wër ci nit ñi di nax waaye nax yooyu bu mu leen yóbbu de ndax xoolal naxu benn fan coonay juróomi at buñ ko bañee nañu bañ nax yi buñ ko bañee nañu bañ wax ju neex ci tey waxante dëgg tey dox ci dëgg nit ñi dañuy faral di wax naan ku la nekkal nga nekkal ma Siré ku ko nekkal mu nekkal la ndax Cees a ko ñor ñun ñi ànd ak moom ñëpp mun nañ koo seede amul benn responsable am amul benn base am mu nekk boo xam te ne taxawu leen jàppale leen kon aussi mbokk yi ñuy remercier vraiment responsable une fois de plus di remercier mobilisation bu forte bi am fii di remercier Thiessois ci taxawaay bi ñu am tey pour le DG Siré Dia di wax président Macky Sall une fois de plus ne ko DG Siré Dia li mu wax nag moom ci la nekk ba tey mooy dootul toog day continuer marche am marche bi nga xam ne moo war a tax en 2017 ci kattanu yàlla DG Siré Dia yëkkati sa Seck ba ci kaw door ci suuf jox président Macky Sall ndam je vous remercie